سعد من في دلا زره إن جندا من خياف قد سرى هد قلبي من خيال قد سرى مولاي صلي وسلم لمعتبر ومن هو النعمة جئت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من أولم ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي فجميع الأنبياء بها والرسل تخديم ما خدم على خدمين تخترق سبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم إذا لم تنا شوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنيم كل مقام بالإضافة نوديت بالرحمة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

مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير واغفر لقارئها وسامعها يا ربي واغفر لقارئها وناظمها يا ربي واغفر لقارئها وحافظها والمسلمين جميعا أيها جنات الجان خدواتنا شيخ المشايخ صلي وسلم anna الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرف الكون بما فيه ومن فيه بميلاد سيد البشر سيدنا وحبيبنا مظهر فضل الله وجوده وكرمه wa ali beytihi wa asxaabihi wa xulafaa'ihi altayibiin altaahiriin wa man waalaahum wa tabi'ahum bi ixsaanin ila yowmi ddiin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokk yi ñi ngi yëkkati kàddu yu nuyoo ak ziyaara di ndokkeel al ummata al islaamiyata kullaha بهذا الحدث التاريخي العظيم di ndokkeel adduna bi yépp di ndokkeel alawaalima kullaha alawaalima al ulwiyata wa sufliyata ak la ñu ëmb alawaalima altabiiciyata wala tabiiciyata kullaha ñu ngi leen di ndokkeel العوالم الميتافيزيقية ولا ميتافيزيقية كلها ñi ngi leen di ndokkeel ci xew-xew bu mag bii nga xam ne adduna musul am xew-xew bu mel ne moom waxantuma ak di ko féete kaw te moo di ganeeg adduna sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne nee na ba muy xam ne yonent la te yonent dootul ñëw gannaawam nee na booba sunu maam aadamu alayhi salaam kaana munjadilan fi tiinati mu ngi nekk ban bu wow koroŋ yàlla wanagul ruux ci moom booba la sayduna muhammad xam ne yonent la woon mu nekkoon leer maam cheikh alxaaji malik mi ngi koy wax ci nuuniya nabiyun kaana qabla al kawni fajaanin kulla diini maam cheikh alxaaji malik nee na nañu béggee yonent boo xam ne lu yàlla lu jiitu yàlla di bind àdduna bi alkawnu la wax tabaatu kawnu dafa yaatu ak li mu ëmb yépp nee na booba seyduna muhammad leer na woon lu jiitu wax yu gi ñëw seyduna muhammad lépp luy wara ak zuhdu al bu'du an safasifi dunya wa zaxaarifiha seyduna muhammad daf ko sori moo tax maam Cheikh Alxaaji Malik ne salli ala sajidin qabla alwara faala bi sabi miati amin rabbi allahu waaw sallallahu alayhi wa waxaat ne na bi muy xam ne yonent la xam na ko lu mat lu ñu tegaat ci fukki junni at ak nangam sunu maam aadama di doon a gën a àdduna kooku nag ku ko am danga ko bëggee waaw leer goo xam ne fa mu nekkoon yàllaa ko xam mu nekk fa di sàbbal yàlla di ko kañ di ko bakk bi anwaai tasbihaati waaw am na luñ ci bind am na ci loo xam ne kenn du ko tudd ci téere waxantuma ak di ko waxtaane ci pénc sang bu tedd boobu nag nga xam ne bi mu gënee àdduna te mi ngi wax itam ne moom sallallahu alayhi wa sallama maa ngi sant yàlla yàlla sàmm na samay way jur ba gane na àdduna te ñi ma meññ ba ma agsi fii mosuñoo ànd ànd bu teguwul ci yoon walam yaltaqi abawaaye ala sifaax ñi ma séq meññ ma ci wàllu ak mbindaafoon yàlla sàmm na leen aar na leen ba kenn ci ñoom musul jege moroomam ci anam boo xam ne jaarul ci yoon na ko Cheikh Alxaaji Mouhamadul Mansour waxe taqallabta fil aslaab من صلب ساجد إلى ساجد ما زال أمدك راسيا تقلبت في الأسلام بمن صلب ساجد إلى ساجد ما زال المساجد المعزاء المسجد العازية إلى مساجد المعزاء لمجد كراسيا إلى مساجد المعزاء لمجد كراسيا Seydina Muhammad foofu la jaar yàlla di ko sàmm ba bis bi nga xam ne ci la soobe woon yàlla ne ci lay gëne àdduna ak la ca aju ci ay kéemtaan yépp am Cheikh El Hadj Malick ko ca xilaasu zahab nga dem ci téereem bu gàtt waaye mam Cheikh El Hadj Malick daal ku doy waar la doy ndax anam bi mu tanaawulee siirata rasuli sallallahu alayhi wa wa xayaatahu altaahirata alzakiyata alafifa dafa bariwul ko ko def tanaawul ci siira bari na ñoo xam ne bind nañ ci siira wax nañ ci dund yonent bi sallallahu alayhi wax nañ ci ay jikkoom wax nañ ci gane àddunaam ba ci génn àddunaam waaye leeral nuuraaniyatu sayduna muhammad sallallahu alayhi ak nekk gu sayduna muhammad nekk leer wa kawnahu awwala maxluqin donte am na ci ay boroom xam-xam yu ciy werante li ci maam Cheikh Alxaaji Malik insisté xoolal law lam yalux fi fadail kawni talaatuhu tabqa albariyatu fi dalmaai yallah ربنا لو لم يلو في داعي الكون طلعته تبقى البرية في ذا الماء الله تبقى

solli salaata wa tasliman ala qamarin min nuurihi xuliqa al akwaanu yallaahu moo tax sunu yaay Aïcha radiallahu anha nee na dafa am benn bis mu nekk ci néegam yore benn puso di ñaw te néeg bi làmp nekku fi puso bi wadd mu xool xool gisu ko fekk Seydina Muhammad nekkul ci néeg bi waaye bi mu ne tëll leeraayu xar kanamam moo ko niital ba mu gis puso bi kuy ñaw yore puso mu wadd néeg bi lëndëm nga jeex jeex jotoo ko sang bi na tël fa ashraqa shu'aahu wajhi nee na fa tabayyantul ibrata ma gis puso bi jël ko nuurun wa kitaabun mubiin yahdi bihi llaahu man ittaba'a ridwaanahu subula salaam ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم tax su ma gisee kuy weddi alxaqiqatal muhammadiya ah dama naan rek sa xol moo tëju waaye bu la yàlla mayee leer tuuti nga am loo mos tuuti am na loo xam ne doo ko sañ aaye boobu sëriñ Babacar jàng léegi yàlla moo ci wax ne yonent bi leer na yàlla bañ na ko ba tudde ko assiraajal muniir yaa ayyuha nabi inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadiran wa daa'iyan ila allahi bi idnihi wa siraajan muniira sayduna yàlla leer la alquran leer la sayduna muhammad leer la sayduna jibril leer la sang boobu nag mbokk yi moom la yàlla bégale alwujuda kulla kullahu mu gën a àdduna jaar fi mu war a jaar maam Cheikh Al Hadj Malick topp ko topp ko topp ko ba keroog am na jamono moo xam ne dañuy wax ne bi muy nàmp moom Seydina Muhammad ak ñamu daan nàmpaaleel bu ko soxna xalimatu joxe benn ween mu nàmp ba noppi mu bëgg ko jox weneen ween wi mu nàmp daf koy foñ ngir bàyyi xel ñi muy nàmpaaleen de la vie. subhan قدره ينن وهذا ينقي للرسالة صدره وهذا بأمر الله يخدم أمره وزيرا جبريل وميكال إسرو فأهلا بشمس بين بدرين في جواه إليك توسلنا بخير البرية وشفع فينا في اللقاء وكلنا سوى الحب موصوف برعب ورهبة بآدم إدريس وهود ويونس ولوط ونوح ثم حاوي لقلتي وداود يعقوب سليمان يوسف وإسحاق إسماعيل إلياس جنتي وموسى وهارون وأيوب واليسع وذي الكفل يحيى ثم عيسى الوسيلة كذا زكرياء شعيب وصالح تقي نار الدارين من كل وحلة ومن آل المصطفى جمع شملنا بأصحابي كشوف إداد المهيبة بأقمار بدر يا إلهي وسيدي وبالملأ الأعلى شفا كل غمتي إلهي يا م... وما حوت فلتشفنا كل علتي إلهي بقطب العارفين إمامنا رجائي وغوثي للإله وسيلتي ختام النظام للولاية جملة به أرتجي الغفران كل زلتي به أرتجي فتح الخالق كلها وقايتنا التجان من كل شدة وكم عند الإله من الإله قبتي أنادي وهل يدعو أخ الجوى فالجهر يعطيني مرادي ورغبتي وما زلت أرجوها من الله وحده وإن لم أنلها يا مرارة عيشتي إلهي والدينا ذنوبهم كذلك يا رحمن كل الخشية كذلك إخواني إلي جملة ومن ينتمي ربي إلى خير ملتي وأزكى صلاة الله ثم سلامه على خير خلق الله من غير سنيتي مع الآل والأصحاب ما ذر شارق وما قال داع يا إليه اللهم يا من تدهر الجميل وستر القبيح ولم يأخذ بالجرير ولم يأتك سترا ويا عدم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم السافي ويا عظيم المن ويا مقل العثرات ويا مبتدئا بنعمك قبل استحقاقها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا خير تربي يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا خير تربي يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا خير تربي أسألك أن لا تشوي خلقتي ببلاء الدنيا ولا بعذاب الله بركة مكة بركة مدينة بركة فاس بركة تيوان barke Cheikh El Hadji Malick barke Cheikh El Khalil al-Fatiha ma salati al-Fatiha سعد من في دهلا